waaw ah, tey dañu naan suñu invité mu nekk Yo Yo Thiass kuy dégg Yo Thiass xam nga ko Yo da lay bàyyi nga présenté. maa ngi bëggee àdduna di na jàmm yàgg si at bu bees di ñaan balaa bi jóge fi rek fi jóge. alaaw amiin waaw waaw sëñ Baba nga ñaan am na solo trop balaa bi moom sama fi jóge. mais Yo ay fan ci ginnaaw dañu gis nga génnee Thiass. waaw ah. balaa ñëw si Thiass mais Yo lu la dugal ci aar. aar ñoom Tamba ñoo ma si dugal rek. Ah. damay ne xale ba tey di topp ñoom Tamba. moo tax mu dugg si am fit dugg si aar bi di yëngal comme ñëpp aar bi kenn moomu ko ku ne day bàyyi waar. waaw ah, loolu la aar bi dafa yaatu ku ne am nga sa moo tax dañ la gisoon nga ne ci soirée wala ci yenn concert yu da nga daan fecc. loolu dafa am naas yi bëgg xale yi. waaw waaw nga ba fecc yu nga ñëw ci ci micro bi lu waral loolu. dara pour tekk la. Ah? mu bëgg a tekk la comme ah waaw ah, mais kon fee doxul woon. fee doxul woon mais nooy eh, eh, eh, yow yow yaa doon fekk ay artiste. ah bàyyi naa artiste rek def sa yëfu bopp moom. mais ah, kon xanaa fay ñu la ñu ma ma bàyyi def sama yëfu yëfu bopp moo gën. waaw boo nekkee dara boo si gis avancement nga xool ñu leen quoi. Ah. dañ ko créé studio toog ay ñoom Tamba Pape moo ko man ma ñëw dëpp Gambie wax ñu si cas doomu Fass mi ngi ñëw maa ko créé. Mm. waaw. mais ba nga defee cas bi def na buzz. def na buzz réseau ñëpp ne Youssou Thiès. waaw ba ma woy si Waly ak Youssou Dieng. ah waaw. d' accord léegi Youssou <laughs> day ñëw si sa carrière ñu gis musique bi ngay def ni yu yow dama ci gis ay potentiel adversaire waaw ah. nga xamante ne guddi guñ toll nii yu ñu ngi si au sommet. ba kenn ki di Ouzin kenn ki di Pawlish Mbaye yow boo na ñëw di jàmbaaroo ñoom lu mais loolu yow mais yow loolu dina métti yow de. dina métti dina dama leen may naada. nga ne. dama leen may dara si showbiz bi. Ah. maa ngi ñëw daal seen kaw. ñoom moo ko kañal fi waxu waaye man su ma ñëwee dina metti nag nag yeneen yonent bi dama leen may dara ñoom wooyu ñu dañuy foof di dof lay wax waaye bu yuusu ñëwee rek ba dal seen kaw. Mm. ngeen xam lépp dëgg la Pawlish xaaral Ouzin xaaral da ngeen di xaar maa ngi ñëw rek yeneen bagage bi ngi ñëw nag booy bu ndaw bi la maa ngi wax ak yéen pare leen doomu Gueule Tapée bi ñëw na doomu Fass. xaar leen ma nag Pawlish ah, Ouzin doo leen dara ah. Pawlish dafa mel ni kaña Ouzin waxu dof waaye Youssou bu ñëwee rek day dal seen kaw maa ko wax de. mais Youssou dama dégg nga leen may dara mais newul doon may dara. waaw ah, du ma leen may dara mais seen naka quoi dama bëgg xam ne yow tey yow tey boo fasee jàkkaarloog ak Pawlish Ouzin yow nan ngay xeex ak ñoom. da ngay ñëw génne ay soo yu neex wala ci naka nga. nar a def ñoom dal seen kaw dóor ko xiiru bàyyi faa bi de kóob. non mais dafa nak yow kii nga génne gum cas waa da police ba ay feeraay booy fi ay ndaw Ouzin Keita bëri bëri ko wala ndànk mais nga xeexal ni yow seen musique yooyu ñoom de yow yow seen clip ñoom may dafa damay wax Youssou Fass ñëw na eh, xale yi dañoo war a sëy ngir bu ëllëg di dimbali seen yaay si dafa xew si jamono kon xale yi bàyyi leen di daw jàng bàyyi leen whatsapp mu ngi toj dëkk bi loolu dafa neex moo tax xale yi Sénégal dañ leen war dimbali seen yaay ngir bu ëllëgee ngir nekk si bureau yi loolu lañ bëgg a defaat. Ah. waaw waaw mais Youssou waaw tey jii def nga dama bëgg xam say projet quoi. tey dafa yow génne nga clip Casamance waaj ak leneen. ñu ngi nag. di ko hmm. bàyyi si loxo yàlla rek. gis label bu ma si rek ma dem. waaw ah. instant yi kañ pare naa su ma gisee label bu ma signé rek ma dem liggéey. waaw ah, mais Youssou loolu baax na yàlla dafa yàlla matare waaw mais tey jii daf na ngay tàggatoo quoi. di leen wax sa mot de la rek. di wax Rhone amal jàmm. Papa Ndoye. Mm-hmm. Laay. Mm-hmm. yàlla na jàmm yàgg ñoo bokk Gueule Tapée. ñu yàgg dëgg ay doomu gël tàppale di ñaan jàmm yàgg la yàlla na jàmm yàgg suñu réew yàlla na ñëpp am jàmm DK TV mooy Dakar TV people man ñaaxarañ loo ek ay Faramareen musique maa ngi seetaan DK TV voilà man la Mame Fatou Ndoye maa ngi seetaan DK TV maa bo maa bo jaajëf waay TV man Alaaji Bekaay Mbay maa ngi seetaan DK TV man Malick Thiandoum maa ngi seetaan DK TV euh, maa ngi seetaan DK TV. man Viviane maa ngi seetaan DK TV. yesa yesa Wally Ballago Seck mi connecté wu ci DK TV ah. man El Hadj Abou Bilal Koutia damay seetaan DK pour yu am solo. ngaa ko blende maa ngi seetaan DK TV. di dundu gis DK TV. Malomzo Dal maa ngi seetaan DK TV. lañ ma liggéey la mu ngi DK TV iway dina yal na ngeen nekk ca kanam li neexul. DK TV.